jërëjëf dañu ñëwoon fii tey ci bés bu màgg bi bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gàmmu ñu xëyoon nag ci ndigalu suñu kilifa le président Macky Sall di siyaare euh, ëttu diine yi nekk ci commune Diourbel mun naa wax sax ci département bi parce que tey fii nga ñu fekk nii mooy Patar taxaw ak monsieur le maire Mbaye Samb maire de

nekk nekk nit yàlla di fi jaamu yàlla ay waajuram dañ ko fi def ci guddi gu màgg gi di guddi gàmmu jàpp nañ ne lu ñu fi ñaan suñu borom nangu moo tax ñu ñëw sàkku suñu boroom sëriñ bi mu ñaanal réew mi mu am jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj réew mi am na jàmm waaye ñu yokk jàmm ci kon bokk loolu moo tax ñu ñëw fii sëñ bi dalal ñu bu baax jottali moom it ay kóllëreem ay kàddu jëmale ko ci président la république mais jottale aussi ay kàddu ci suñu diggante ak moom ñu koy sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal moom it mu yàgg fi lool yàgg ko fee fekk. waaw dem nañ ci ay tuddiine yu bëri euh, bi ñu xëyee ba léegi suñ borom sax moo dogal ne kilifa gi jox ñu beneen digal ci beneen région moo tax ñu wàññi ko waaye bi ñu xëyee siyaare nañ suñu mbokk Baay Faal yi jaar ci suñu xarit Sëriñ Taala ak njabur seigne Modou Ablaye yep seigne Ablaye Fall mais ziaré aussi wa keur Ba Mbacké Tàññang euh, ziaré len jaar ci seigne Alaaji Fallu euh, jaar ci seigne Ismaïla Diouf momit amone yene nak jall ci barki bik ma demoon ci seigne Omar Tàññang euh, fas won jall ci keur yi nga xamni yep ñi ngi magal goudi mu tonnon ci fanwer ak waye nak suñ borom ñew ak dogalam motax xam naa ne damay dem ci beneen ndigal li waaye sama gaa ñii ñu àndal incha allah kër gu ne danañ fa egg jébbal suñu suñu ziar ak suñu sàkku